waaw demaguma fa nag seetu ko vraiment. Mhm. waaye jokkoo naa ñenn ci ay jege ñaalem ku mel ni Baye Mbaye moo yor léppam. Euh, jokkoo naa moom vraiment biñ ko yëgee it naqarlu nañ ko méttilu ko waaye nag réew mi réew la moo xam ni maanaam ñun côté bi ñu nekkee bu nit dee yow mi koy suul. jàppal na balaa peel bi tegu mën nañ laa suulaale fañ ko suul waxin na nag mooy maanaam buñ téyee nit. Mhm. ngay naqarlu jàppal na balaa sa kàddu di daanu sax. mën nañ laa jël si te it tamit maanaam jël si boo xam ne it ñun comprendre lul parce que it pour man maanaam téléphone am fii. Mm-hmm. nit ki boo ko ooyee am nga droit na ko da fi am convocation soo ko mënta indil wala nga yebal nit mu indil ko ko bu ñëwee mu waaxu ndànk comme kilifa la dem uyu bu ñu koy teeñu teg ko parce que génn réew mi réew mi mënu fee génn ci lu leen neexul parce que yéen a yéen a occupé aéroport xam ngeen kuy génn ak kuy dugg. yaa ngi dégg. Mm-hmm. benn ñaareel bi mooy bu génnoon réew mi mënut a am fu gën réew mi parce que koo xam ne chaque jour xet na deux cent mille cinq cent mille kooku yaakaar naa feneen fu mu génn it mënu koo am ci ci ci ci ci réew mi. Mm-hmm. kon nañ delloo si xel yi te xam ne am na ñoo xam ne seen place du kaso ga. Cheikh Bara place am du kaso ga koo xam ne dafa mën a employé lu gàtt gàtt trente personnes quarante personnes di leen fay am na ñoo xam ne nii ci moom lañ na am na ñoo xam ne nangam kon nit ki am na loo xam ne bala a nga Seydina Omar. Mhm. mas na ñëw di wax ak benn jigéen joo xam ne dafa ñàkk lum togg di tàngal ndox fekk muy doxantu te booba moom moo nekkoon njiital lislaam bi muy doxantu ci kaw ci àll ba ci kaw mu gis meer bi teg ndox di tàngal doom yi ñu naan ko yaay damaa xiif mu naan leen xaar li may togg ñoragul te ndox kese la teg Seydina Omar waaxu ba ci meer bi ne ko yow joxal xale yi ñu lekk ñu ngi lay wax ñu nga lekk rek mu ne ko ndax yaa ko fi joxe Seydina Omar ne ko déet ndax xam nga ki ngay wax ndaw si daf doon dégg turu Seydina Omar te xamu ko ne ko déedéet xaw ma yow mi may waxe yow mi may wax yow la kan mu ne ko man la Sey man la man la man la Seydina Omar Seydina Omar mu ne maire bi ne teg ba ci kanam ne ko waaw joxe woo ko fi mu ne ko lan moo tax ñi amuñ luñ lekk. mu ne ko sa gouvernement bu awoon nu mu war a aw bët bi sa da nga xool ñi man ñi seen loxo jot seen gannaaw ak ñu jot seen gannaaw kii seen bàyyi dafa àndoon nag yow ca xare ñu rey ko ca toppatoo ko woon ba boobaak léegi xale yi yëpp yow yaa leen def jirim Seydina Omar ronk ñam dal ci dënam mu ne lii su ma ci deewoon yàlla mbugal ma taxaw sukkubati oom sant yàlla na ko yow yàlla maa ngi lay sant yow mi ma ñëw ñëwkinal ba ma mën a dox ci àll bi ba xam lii ci tàng-tàng bi mu waaxu dem fa ñu denc ci ndàmmi jullit yi jël fa lu jël fa lu tolloog dund ay weer ñëw indil meer bi jox ko sukk sukk jéggalu ko ba pare na ko depuis sa depuis kañ xara nangam la sa jëkkër dee mu ne ko xara nangam ñu calculé ko boobaak léegi exemple mu ma 3 mois 2 mois mu doxaale ko dund 2 yooyu nga xam ne mee doon na ko taaba taabaaka ba pare nag ubbi benn ubbi benn benn benn groupe boo xam ne daf leen sas rek lan bu ngeen xëyee wër leen ci ñi ngeen xam ne ni demoon nañ xare wala seen loxo jotu seen wala amuñ luñ lekk ñu ngi leb ñu leen toroxal ñu ñëw fii ni ñu leen di jox lekk gi mhm. ñi nga xam ne ñu ngi leen di jox lekk gi it mhm. ñooñu nañ ëlbatiku maanaam te te yeyoowuñ ko nañ ëlbatiku nangu ko ci leen caw leen mhm. mooy tey exemple anti système bi ñu ci bëri rek tey ay boroomi milliards bu ñu xëccee boroomu dërëm seen i dërëm bu ñu xëccee boroomu dix mille seen i dix mille boroomu cinq mille seen i cinq loolu la amee ki yorut bàyyi ko ñàkk yoram sax bàyyi ko xurriyaam mais may ko kàddoom mais yorut nga bëgg koo xañ kàddoom bëgg koo xañ loxom bëgg koo xañi tànkam mhm. kooku bu yàggee dafay dafay riposte te loolu la ñu bañ est-ce que est-ce que bu ñu xoolee comme li xam ne moom la koy toppee jàpp ne dafa doon euh, jox alal ñoo xamante ni dañ leen di euh, xërtal pour que ñuy taal ak di manifester ñu ni mel euh, Pastef jotul ñu gën ko moytu wala boog itam ñu war ko moytu wala ñàkk xam politique moo tax yu ngeen ci faral tàbbi xam nga ñi wax noonu yëpp ñuy wax toppee loolu Cheikh Bara Cheikh Bara ñu ngi ko toppee maanaam euh, euh, nu mu baat bi tudd ci français maanaam kàddu goo xam ne mën naa influencer ay ndaw. ci wàllu xeex. loolu lañ ko toppee. am na journal boo xam ne moom yàqamtiwul lu dul Pastef wax wala lu jëm ci Pastef. ba mu jël chargé ay ay mbir. noonu la def Ousmane Sonko dugal na ko terroriste dugal na ko fukkin xaw ma lan la dugal na ko maanaam jihadiste dugal na ko lu nekk. lu nekk bind na ko ci Ousmane Sonko. loolu doyut imaam Aliou Badara Ndaw mi wax junne chargé na ko ko. ba tey jii bu dëgg doon dëgg ñu te xëy ne imaam Alioune Badara Ndao toppee wuñ la dara. Hmm. njabootu imaam gi dañoo waroon dem pérante journal boobu noonu. ban journal la. xam ñëpp xam nañ ko journal boobu jarul jarul laaj ñëpp xam nañ ko. sax da ngaa ñemewul li ngay wax wala. non c'est-à-dire man aw ma lu may ragal mais ñëpp xam nañ ko ci presse laa toog kemeem xanaa yow doo nangu ma toog ci presse di xas sa moromu presse di jaar ci turam. non dama bëgg nga wax lu leer. parce li ngay wax ñun bu ñu ci amee. benn ko journal kese ci mi moo fi moo fi taxaw sarsa si imaam Ali Badara Ndaw ne terroriste la fekk nañ daaram léegi daaram laa kon nag da ngay lire ci internet bi di ko gis. yaa ma gën a xam li may wax bu ma dogalee yow tamit nag. <laughs> ok ñu avancé ñu ngi ci seen émission xigma di ci ànd ak euh, Serigne Cheikh Tidiane euh, Niass beneen benn nga xam ne bëgg naa ñu taxawaat ci mooy euh, Touba ñu gis lu yàggul dara xalif bi defub déclaration wala boog itam sax communiqué fedd liwaat que ne li nga xam ne mooy urumu Touba bi lépp luy activité politique ñu ñàkk ko fa def ba sax dàquñu ay bureau de vote yoo xam ne nekk nañu fa ñu jëlee ko fa amaana yóbbu ko feneen décision bu ni mel na waaw ñun nag Pastef yàlla dimbale nañu. <laughs> dimbale goo xam ne fu mel ni Touba këru diina gu naag na muy doxee ko mais fu mel ni Touba na muy doxee. fekk teel nañ leen a fekk ci doxin bi. booy xool euh, PDS ou APR ñoom ñëpp seen siège ci biir Touba la nekk kon ñoom ñoom ñooy doxal activité tou activité politique biir Touba yàlla dafa dogal. Pastef moom dafa teel a génn raxasu ci lu jëm ci activité politique biir Touba dem Mbàkke installé fa seesam toog fa parce que tellement mais yëngu-yëngu bi ëpp bi ëpp riir Touba yéen a ko fa def waaw c'est-à-dire defewuñ ko Touba vendredi bi Sonko di waroon dem Mbàkke Mbàkke la bu leen jaawale Mbàkke mais Touba la dem julli fa juma waaw julli ak bu ñàkk amee yëngu-yëngu du ci Ousmane mooy li ma la wax sànq ku ne ak na ngay parenthèse wax te foofa yëngu-yëngu amu fa nit wax rek bi mu ñëwee ci biir dafa summi ay dàllam wax garde corps ne leen summi leen seen dàll yi ñu summi mu dox ndànk dugg julli nuyu sëñ bi jàmmuwaan sa génn dem yoonam Mbàkke la coow li amee ak wax ji kon du biir Touba te aussi tamit Mbàkke la suñ suñ sees nekk nekkul biir Touba tey APR rek ngay gis ñu am biir sees biir Touba ak euh, peres ak extra extra te ñu am biir euh, biir Touba kii tey boo ko fa Pastef amoon lu nekk da nga ko dégg. il faut que bu ñu waxante vérité ñuy wax ñuy wax yu leer yooyu noonu gars yi gis ñii tabañ ci wax kon ñun maanaam bu activité politique di génn Touba ñun fekk nañu ñun ñu génn fa bu yàgg ñun li tax ñu génn fa nag mooy kër ga noonu lay doxee te kër gu ne Pastef dafa pare këru diine gu ne na muy doxee ñun duñ ci duñ ci laal dara ci politique parce que dañoo weex donc ngeen doon ay sëriñ euh, décision bu mel noonu bàyyeekoo ci Cheikh Mamadou Mountakha est-ce que euh, du jot ngeen jël recul yéen ñi nga xam ne leen tuddee ay doomu doomu daara wala itam ngeen bokk ci ay këru këru diine parce que dafa mel ni sëñ bi li muy bëgg wane mooy terrain politique bi ni mu ko gisee amaana euh, méngoowul ak politique bi lislaam soxla xanaa. waaw xam nga ñu koy interdit Touba moom la ñuy wax ñun nag yàlla dafa dogal suñu kilifa yi bu ñu leeroon ne lu ñu nekk neexul leen bàyyi nañ ko bu yàgg. waaw ñun bu ñu leeroon ne ñoom lu ñu nekk neexul leen bàyyi nañ ko bu yàgg te biir nañu ne it <laughs> li ñuy def it